برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان موي نور متلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تحرفنا biha iyaahu ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel jamaa bi di amati mbégte ak kontante bu wér ci bi ñu yàlla mayee ñu nekk ay jullit ci biir jullit gi ci biir islaam am beneen xelal yàlla génnewaat ci biir islaam te mooy tariqa Cheikh Ahmadou Tidiane yi mu nekk ndolol bu rëy ci lislaam ndolo boobu nag du ñëpp ka a jóg ndax yàlla wax na ne la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna sabala sadid loolu teg na ne kon ñëpp ko jóg su ma santee ci ndollal gi ma dol leen ci su ngeen ma sante mooy su ngeen ma sante soo ci man ndollal noonu te ndollal googu mooy traité Cheikh Tidiane yi ci biir islam mais ma dolliwaat leen faydu ci biir ci biir islam waaye war a yéen kafartum nag di ko inkaar innaha saabala sa dikk kon nag ñun ñu ngi sant bi ñu ko gëmee mooy tarixa boo xam ne sosuwaayam mooy sunna Seydina Muhammad ak alquran karim tarixa tijaan lépp alquran la ak sunna léegi yi bëri nañ ngay nekk ba sonn waaye nag comme nit ñi yemuñu ay kal foog ngay répété rek lay yi pour ñu déggutoon dégg ñu dégg gën a amaat soof cheikh ibrahim yasalaam wax na ne joxoon na benn déclaration bu mag tariqa tijaan moom bàyyi ñes joxoon déclaration ci tariqa bi déclaration boo xam ne pour laayee biir àdduna bi la da ngay gis moom tax moom Cheikh loolu de pare mu nasatu min nii nasatu ilal ixwaan wala ila ixwaan boo ne ilal ixwaan day day nekk dëgg boo ne ila ixwaan yi day nekk dëgg lam alif gaa tax ilal ixwaan dagan na ilaa ixwaan yi tamit dagan na bàyyi ma ne maa ngi laayee biir bu duggee ci man jëm samay mbokk te mbokk bàyyi des mooy lislaam mooy waa islam wala mbokk bàyyi des moy képp ko nekk nit rek mbokam nga kon bay mu ngi o ñëpp ci traité chrétien sans sept setul kenn ku bañ nak ya bañ waye pour deug yi ya deug sopp ndax tariqa tijaan soo gisee ñun bi ñu waxtaan si waxtaan ëpp ci loolu moo dañu wëri fii ñu ko weddi bëri lool amuñu benn argument kat bu ko weddee te ñu ngi ay coow. Cheikh waxoon na man bàyyi maa gën dëgg biir yi ci àddina bi kon kooku lu mu dëggal war nañu ko dëggal. bàyyi na kon nasihatu minni maa ngi laay biir bu tukkee ci man ila ixwaan jëm ci mbokk yi. mu ne ne ko lan la. mu ne fal tumsiku foto suku wabata, baa tax na ngeen japp japp len li ngeen japp la la tariqata tijaan tiyani yéen ñep na ngeen da ko lu tax tara kala bo tara ne tariqa maqdi fadli war waridwaan moo dem ngëneel yàlla di ngëneel joxe mu ngi nekk mu ngi joxe traité Cheikh Tidiane ah waa Nel Sall bu foog daa yu di mën a saal te ngeen di yàlla joxe bàyyi mu mu ngi nekk ci traité Tidiane xam nga lu tax wilaya moom yàlla moom mooy wëlliw te wilaya ay wilaya mooy Cheikh Tidiane te yàlla mooy joxe xéwal yi te yàlla moom yàlla wóor maay nubboo wóor maay travail wax naa man maay Tidiane. inni ma wëlliikumul nekk ak keneen di yàlla allahu wa rasulu allahu ma yàlla wa rasul te mooy yonent bi te ki ñuy ñun ñépp nag yàlla na moom la te gis nga ki ñun ci compër leer mooy Cheikh Tidiane loolu mooy li kon tamit am na wax dëgg lu bëgg tariqa la boo xam ne usus usus sa suwaayam tariqa bi sa suwaay tariqa bi mooy lan bi sunnati wal furqaan xam nga dafa waroon sunna wal quraan alxuraan lañ ko waaye furqaan la wax furqaan tëral seen boppam ndax furqaan su amul su su du génn alxuraan kese soso amul bu ne alxuraan kese daa doon soso waaye bu la soxla nag am na lu soso kon quraan mooy damxu waaye furqaan mooy fokk te fokk te yi mën a xamee kon usu si sunnati bi sunnati wala furqaan lii rek dana ne ñëpp jël traité Cheikh dama ne Cheikh yi jël tarixaam dana yeey ci ko am xel mbër mu toll Cheikh Ibrahima ku ko mën a taalib yow wër mbër mu toll nii Cheikh Islam ci àddina bii ñu ne comme sëriñ yow mooy ni muy sëriñ doyloo ko xam nga kooku doy na waxuma ay ñoom ñeneen nag am na sax ñeneen waaye boo jëlee bàyyi moom tuñ ma làmb ji soo jëlee baax yi dootoo jël keneen waaye boo jëloon keneen nag après nga jël nag baax misaal soo nee ku mel ne Cheikh Omar Foutiyou Tall borom ak mburu boobu te ñu ngi dégg lool bind riba riba riba misaal riba amul lu ñu firi moom. mooy firi ñàkk ñàkk xam nga ne baat tukulóor la benn tukulóor la ñu la waaye daf ko tukulóoral mooy firi ñàkk ne yéen waaye ah, ñàkk laa koy firi hmm? fett mooy ñàkk xam nga fett mooy da ngaa tax fii bu ko bàyyi gaañ la nga dóor ñàkk nag moo tax daf lay kii rek mooy ñàkk bu ndox mooy ñag la leen xamaa ñag la yit nag jaawaru baa dafa nekk nii moom mu def ñag wër ko kon kay ñag te it mooy bu taxaw ni dafa ngeen bëgg a geer kii nga mooy suuf ngeen nekk ci biir mbooloo mi mbooloo mi wër wër ko pare nga def ko nag yor dee ñu ne ko def ñag ngeen ko damay ñag <laughs> ñag lay jóge baat bi dafa doy waar nekkul moom mooy def benn téere bi ñor day pour garder xam ne xam na ni jawru maani dafa am wëlër te nga yàqu nag mu gay nag gay nag nga yàqu fu mu nag kon kenn du mën a jàll ba ko yàq doon parabole la ku mel ni Seydi Alaaji Malick comme nekk sa sëriñ ko góor Alaaji Malick ci Sénégal fii ak fenn Sénégal xam nañ kan mooy Alaaji Malick ci xam-xam ci yar ci teggin ci rëy ci kabaal ci mat lépp di yar di jàng-jàngale xam-xam le ñépp xam ne ko ci ku mel noonu ku nekk sa taalibe sëñ ba mën na sëriñ demal demal demal ñu bëri boo nekk rek mat na sëriñu sëriñ si oote sëriñ suñ si taalibe si taalibe mën nañ suñ sëriñ ñoom ah loo ko aqmaari. loo saxun ka aqmaari. daw fatxin wa asraari. tamkiin wa anwaarin fa kullun aynu ci ñoom lu day moom moo képp dem moom moom dafa mel ni li bàyyi wax rek kenn kenn ci ñoom ci dara sëcceen kenn ci ñoom moom benn jëm la ko mooy jëmmi ay jëmm moom kenn ku nekk ci ay junni nit lay doon junni sëriñ comme du benn sëriñ laa waxoon juróom-ñaar fukki junni sëriñ du benn sëriñ laa waxoon bàyyi moom déedéet bàyyi leen déedéet sax yow di ma tuuti moom taalibe mu ne benn bi wecci ne ay junne junne junne yu nekkul tijaan loolu la may wax kon loolu yëpp ñu sant yàlla baax ci biir tarixa coow nga mën a bëri ak nu dafa ànd coow ku nekk mën ngaa coow nag faral sa waay faral sa waay waaye li ñuy xamee ki man ne sa jëmm rek jëmm mosax rek dañ leen a xool da xool tijaan xool pour tijaan rek xool rek laa ci bët xoolal tijaan yi xoolal ko nekkul tijaan rek ak tijaan su waxee ak ko nekkul tijaan su waxee nga xool wax yi nga comparer wax yi rek wax yi ni ñu amee li jàmm kon maa ngi wax ne sax tijaan yi dara xam ne dañ ko jël comme jàngale gannaaw tariqa tijaan tamit nag maa leen raawaay wat ci beneen foy am na beneen paas bu ubbeeku waat gannaaw Cheikh Tijaan pas na beneen paas buy ubbi waat xam nga arfaa boo jàngee benn waat paas ba mu jeex dañoo beneen dégg ci loolu loo dégg doon tariqa tijaan mooy boo paas bi may xaqiqa nga si paas mooy fëy bi kooku tamit nga kenn ci kenn du mën a jëriñoo te rek Cheikh Tidiane te ñëw ci kenn mënu ma tamanee fa lii fi tarixal laa atta nahaj lu tax bàyyi ايضا بها كلفه جرائم كلها والدعاء عينين والرجل لو لنا كي إيه، ما يشاء الاسلام تمام بيبقى بيبقى السريم ده في عالم الجسر كل سريم كم تكون تخاف من غورنا من السريم بي كم نوع الناس على حبي آه أرى آه. bu ànd naa nekk man bàyyi man borom cofee laaj Cheikh Tidiane dama bëgg Cheikh Tidiane yi sal ko def bi ñu ko dox mu ne laala yow Tidiane man xanaa ma nga gis ku Cheikh Tidiane soo bu ma sax di bëgg keneen daf kenn dafa amul xam nga bala ngaa bëgg ñaari fii ne ngay bëgg nga naan bëggal kii mbaa bëgg seetaan nit fee kenn donc loolu la wax laala xëy Tidiane yi maa da Cheikh Imaam yi pour société bi ministère bi te saa bi sa saxaam yi. yaa ngi mel ni ñunax xam ñunax mooy lu amul ma nga ne te amul ma nga ne da koy séen te amul dafa da ngaa nekk ci yoon Kaolack di dem ci kaw tali bi yaa ngi mar bëgg a naan ndox ma nga taxaw ba ci oto bi ndaw ci ci ci ndox ma. wala nga yegg foofu rek nga ko ko feneen nga dem foofu rek nga nekk feneen nga dem ba mu jeex doo gis dara li mooy ndaxawu mbay. kuréel seet yàlla ngi léegi nag tànn kuréel seet yàlla bilaay la si laay law nii nga mel tànn wax te sarabin sax saxaan am na sax foo moom maa daf ko gën a métti daf ko gën a métti baax laa sax baax na ñu ne moo gën a métti dafa nekk ñu ne pare mën a ñu tëj ko ci pax asa imaam yi ñorox buñ tëj ci biir pax xam nga ñor amutoon daal tam lañ pax boo yoree sa dara kon ñu ngi sant yàlla baax ci yooyu yëpp di yàlla mel nañu loo xam ne wax dëgg yàlla buñ góorgóorlu effort bu baax rek kenn texaat bi moo tax Cheikh Tidiane bi tarixaam koo jàpp doo taxaab yi dinañ bu dof maa ngi dégg Barham Diop di nettali benn piste mu ne bàyyi dafa tukk woon boobu moom moo tukk benn waaye moo moo tax ba pare nag su fekkee Tidiane benn waaye ñëw laaj ay laaj ne yow Barham mu ne maam a laaj ba ko bisimilah mu ne da ngeen wax ne seen ku ko jël. sa baay day texe sa yaay texe sa juróom-ñaari maam juróom-ñaari kii sa goro sa jabar alors boo amee kay daal ñu koy dugg mu ne ko waaw yow bu ñëpp daal di dugal jóg ko rek ay gaa ay gàlkat ay gàlkat laa ko dugg ci benn kujoo mooy tax ñuy wax ne tarixa boo xam ne dañ koy gërëleeg diine ji banaan ku ko jàpp da ngay texe sa baay moom ñoom doon sax daraja tarixa bi loo xam ne diine ji amu ko nga kon xamoo ji diine ji ko kon yow ko lay laa rek julli waxul julli waxul ko julli wóor ko woor wóor ko asaka wóor ko dem màkk dafa man maa laa yaay la daxal jël moom ñëpp moom sax ndey bàyyi tëdd ba tawul ku ko wax rek wax da nga tege liggéey moo gën a yomb kon ñàkk dégg boo fi nekk gërëm mbooloo di ndokkeel tey la def premier ajjuma encore ci koor heure bii daaw yaakaar naa ñu amoon invitation télé maa ko doon séntuwaat ren xam naa ñoom dañu ma ko koy dox duñu ko dox ku doon invité invité bu ma dégg da bañ waaye ñoom nekkul ñu neexalee du télé moo ñuy feeñal suñu suñu li koy feeñal mooy ngelaw lii moo koy feeñal ngelaw li ngelaw li moo koy yóbbu fu ne comme nekkul màggat daa ñëw ba suñu fekk dafa la ndax ngelaw ba ñëpp a sol te boo koy dóoree boo xam ne moom la wax. kon nag ñu ngi sant yàlla di nuyu bi di leen ziara di wax ne ñëwut nañ ci ramadan ramadan ñaari at lay wax ñu gën a yu dara ma xam ne dafa wax شهر رمضان ñu ne ñu ne sawmu shahru ramadan muhallaqun bayna samaa'i wal ard te laa yarfoo ilaka wala yarfoo ilaka laa yarfoo du yëkkatiku mukk ila bi sakkatil fitri ci lu ak salat dog fii leeral bi dana solo loolu li saa di ko jàppee rek mooy ku woor ba ngoon jot sa kooku du mën a baax lu nu nga dog dafa ceeb ak mburu yi du boobu d'abord luy asamaan ak luy suuf ak luy diggante asamaan fok fokk ni ko xam luy asamaan xam luy suuf am luy diggante asamaan suuf asamaan day moom benn ngi nii ñëpp a suuf tamit benn nga ñëpp a bokk a bokk waaye asamaan suuf ak kuy suuf woor amul ci diggante asamaan ko moo di ko ko mooy koor boobu lañ aj nekk diggante asamaan suuf kooku nag ay diggante asamaanu suuf béyeg mukk mukk mukk mukk ci yàlla bu ne ci cal nag mooy duñ taxatul baqe dafa def énaa bi sakkatul loo ko jox borom baqaw bi seen toog boobu nag dañ ko def fee naka jëkk tey nag mën naa ko changé xam-xam du jeex nu nu gaa yi demee ba gaa yi xam rek ba bëgg nag ay nant rek da ngay yokkaat. parce que bu ñëpp ak xasee xam du lu neex foog ñoom ñu xeemat pour xam-xam tey da wax ne asamaan ngay jox xaqaay yëpp fannaaw bi yéeg parce que yéeg suuf mooy wàcc waaye du suufee xam suuf mooy wàcc rek mooy baqaw xam nga yéeg amatul lekk amatul naan amatul jabar amatul nangam doo mooy yéeg wàcc nag mooy nga nekkal la nga nekkoon di lekk di naan nga ma tax kon asamaan bi mooy yéeg bi su may wàcc bi te mooy boo yéegee wàcc tamit ama koo dogg sax xamu tax am na ba tey ku nekk diggante asamaan suuf يدفن على بقى مكفني فلو دي ما غلق باي من بقى بدل و بسا كوتي انا بقى غريب وهو بقى غريب فسلقا نهيرون فنكو حقوبو بلك ولك دي ملك دي تفن على بقى حقوبو مورتون دي تفن على بقى مولي بس كم مرة بقى مولي لوري بقى لا فنا فنا لا بقى بقى رك نجكم مولي oke mo Eva safana efa sabaka buka yo dudu dudu dudu rabe na na bulan na lo tebe bere bere ti tay lo ne yo kate bu dewe ne bu ñep tamé ni waxal leen ya lo la met li xam rek ni waxal leen auto bu ñep def sakat lay neex yalla bala neex ñep frekante mais bu tur ci bëré yalla de tay mbir ma tañu na bu mo yalla bala jàmm ba ca baax waaw mais bu ñëpp jaam yàlla rek yàlla dàq balaa ba tax xadara bi bu ñëpp yi tey ñëpp dañ bëgg mën a waxtaan béy rek foog ko fekk waaye mu tëb la béy waa fekk waaye ma ngay waxtaan nga roro nga roro te yow li nga wax yaa ngi dem rek ndaxte rek liggéey rek ku nekk bul fàttali li fi doon waaw ah, boo ko fàttoo rek bu baax bu dul amee nag day jaxasoo bu jaxasoo nag xam-xam yàlla day taw waaye ba lépp di leer ñëpp ñu bëgg ñëpp mooy man dama am xam bëggal ci li ma nekk ñu ko dëggal te bàyyi loolu moo tax kon nañ santal bu baax ñu ngi nuyu ñëpp di leen dokkeel di kontaan trop ci xadra bi di kontaan ci weeru koor bu rëy wii di yërmaan yàlla xam nga Ramadan zahru Ramadan alësi xam nga yàlla moo doon précisé na zahru Ramadan bi naa amoon alësi ñu ne ah unzila fiihi fil Qur'an sans Ramadan gaay naa naa man ëllëg si ah. um si la fii si la yow quoi. si bi dina am ah mu ne ndaw bi nga xam ne dina si la wàccee fii ci moom alquran alquran mu nekk lan. wut dan nag li naas. pourtant naa seen benn mooy kon ku jub wut hidaaya ba tax nga dafa ci tam mooy ne ko feebar ak ak kuy tukki fu ma seede ku seedee weeru koor bi fa lay sum te ku seedee ramadan bi rek woor ku seede woor ku seedul nag bul woor oto njëwe njëwe léegi ñu ku feebar baa kuy tukki mu ne jàppal bis yi ayam koo xam te yow miy tukki bis yi ngay tukki noonu téye ko takk ko yoon sama tamit bis na ko takk ko soo wéree fay loolu doy na wax ana kuy tukki ana ku feebar bu la ci aarifin bi laay ñoom ki taw naan lan danaa yow teema takkal nag fi nga toog naan lan ba xam-xam dikkal la bu soxla dikkal la nga fay wér mooy nangu iman bu dëgër kita kiir gi man maa yàlla man maa yàlla yem foofu kese te yàlla ci kër goo xawaat ci kanam yaa ngi ko pareegul limal bi si des comme yaa nga waxoon am na ci kanam boo wéeree ci mayal ga nag xayal bis des loolu parabole ci santal ci nañ ci tafsir bi mbokk bi ko def am na ngànt tey dafa am benn mbokk bu ko jege bi mu jógee fii démb rek ci guddi gi ñu woo ko dafa dafa gaañu doom lu yaayam la ko baax la def na ko gàmmoo temps rek waaye décoré ko def ko benn manteau def ko benn kaala wax na ma photo bi yëpp temps yii dara la station ne na ko ndeysaan yal na ko yàlla yërëm ñaan yàlla xaare ko àjjana yàlla ko fekk ci àjjana yàlla ut ko njabootam yàlla kanamam leer gannaawam leer nan ko nan ko matal la yàlla kanamam leer gannaawam leer xam nga kanam la kanam la mooy lan ak mooy lan bi ngeen di àdduna bi defal lu baax rek bu def dara lu bon lu ñuy wax ëllëg defal lu baax rek xamal yàlla yëpp nag xamal xaq rek ba fa wàcc bu ko defee boo dee sa kanam leer na sa kanam leer na

ñu koy wax Seydi Pou Baye wala nga Seydi Mouhamad Niang ci turam tey moo ñu uutu ci tafsir bi insha allah rabbi te yëpp li muy firi jamaa bi jërmalut jërmalut sànq sa waay bëggoon na ko jël moom moom borom di tëbal te ku dégg téere bàyyi la si kawam macha allah mais sax ñoom ñoo ñuy xëccoo kii da ko jëlal ko jëlal kii da ko jëlal lii may ndam ku nekk rek ndeysaan bëgg na ne ñoom kon yal yàlla may tafsirkat bi làmmiñam tegu ci liñ soxla ba ëpp la ko jot ci li muy wax.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 والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورد الله على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ائمه الشيخ اهدوا لنا في هذا المحضر waltaxtafi bi nasratin taxtilana bi safari kon ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ñëwaat ci tafsir bi pour wuutu benn mbokk moo xam ne jàmbaar la yàgg naa taxawee lii waaye ñu ñëw jéem ko wut rek parce que ndigal ñëw na mu mel ni ñu ci tafsir suratu nisaa yi ci aayat yoo xam ne yëpp yëpp mu ngi jàngale mu ngi jàngale ci mu ngi jàngale ci yàlla ci sëy lay jàngale ci yi nga xam ne araam na pour ñu takk leen ak ñi nga xam ne dagan na pour ñu takk leen ñu ngi yemoon rek ci aaya bi nga xam ne yàlla mu ngi wax ne bu ngeen muñee moo gën ci yéen waaye yàlla moom jéggalaakoon la te itam ku mën a yërëmale loolu yëpp kon yàlla mu ngi bañ rek pour nit ki xëtt xormaay sariya bañ a njaaroo moo tax tegal na la ay sàrt yoo xam ne bu si nit ki jaaree man naa fegu ba du xëtt xormaay sariya ñu war a commencé ci aaya boo xam ne yàlla mu wax ne yuridu yuridu llahu li bayna lakum wa yahdikum sunana alladina min qablikum wa yatuba alaykum wallaahu alimun hakimun yàlla ne yuridu namm na kan moo namm mu ne allahu yàlla lan la namm mu ne luy bàyyi na ngir na leeral lakum ñeel leen sariya seen sariya mooy seen diine ak loo xam ne da ngeen ci mën a yéwénal seen mbir loolu la yàlla ci li muy jàngale lii yépp na pour leeral na seen diine ak loo xam ne seen mbiri diine seen mbiri àdduna dañ ci mën a yéwénal du yem ci loolu wa yaat yëpp mu jënd leen sunna alladina mooy yoonu ñu nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitoon ci ay yonent ci li nga xam ne daganoon na si ñoom ak li xaraamoon si ñoom kon yàlla li muy jàngale yëpp lenn rek mooy en la mooy pour seen sariya leer seen diine ngeen yeewalu seen àddina ba pare mu leeral leen leen yoonu yonent yi ci li ak li xaraamoon si ñoom moo tax mu ne yuridu na mën a allahu yàlla li yu bay naa ngir na leeral laa mu taalim la lakum ñaan leen wa yahdikum mu gindi leen sunna na ladina mooy yoonu ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitoo wa yatuba mu nangu tuub aleykum si yéen yàlla nangu leen seen tuub ci mooy yàlla yi ngeen nekke woon ngeen jëm ci topp ko moom yàlla wallaahu yàlla alimun aji xam la ñaan leen aji xam la lépp nekk si yéen xakimu aji xereñ la lépp loo xam ne ñaan la leen foofu mooy benn aaya jërëjëf jërëjëf Seydi Mouhamad Niang yal na yàlla gën la joxaat fasaxa kàddu gi neex na toog kàddu gi leer na kàddu gi am na li jàpp bu baax ndax li ngay wax muy ñu ne ci kontaan kon am na li jàpp waaye am na magarifa yaa ngi leeral xam-xam am na tënkim yaa ngi dal ci li wax ci sut bu wér am na maxabatu fi daxi tabaraka am na am kon kàddu yooyu yëpp yal na yàlla boole ko wàcc ko sa kaw muy gën di tuuru rek xam-xam di gën di wàcc sa jëmm ji ñu ne ko tasaare fi yàlla yi waaw comme ni nga waxee léegi day mel ni ji yëpp passé ñu conseil ba léegi ñu ngi waxtaan ci diggante góor ak jigéen ci li dagan ak li daganut li yàlla gërëm ak li yàlla gërëmut li yàlla gërëm li yàlla gërëm moo gën ci ñun li yàlla gërëmul nag baaxul ci ñun donte am na ñu koy def ay nit yu mel ni ñun la te gënuñ leen aha kay ñoo leen gën comme ñoo bàyyi yàlla araamal kay léeg-léeg nga dégg ñu yàlla xamal ko kenn xamal ko gën sa morom ah kay ka bay jubbali nekk ci njub kay moo gën ka nekk ci njubali hmm. wala bu fekkee ne dem nañ ba moo gën kon ka ko ñu ni ñu ko doon triche waaye ka ne ci njub moo gën ñu ngay mën démb ci ki nga xam ne xoor la waaye yàlla natt na ko ba amul amul lu mu caree amul lu mu caree xam naa kooku de néew la nit ku néew de ba amoo loo caree wax dëgg yàlla suuf la yaatuwul koo am lu mu yàlla mooy takk ci jaam ñi jaam yi fekk jaam bi mu nekku gëm yàlla soo mënee muñ nag te li tax nga takk foofu kat kon soo mooy nga bay ndaam fekkee man ngaa téye bopp nag doo nekk da nga jantam dama bopp téye sa bopp waaye am na benn buum boo xam ne bu ñu sam jox ku ko téye ku ko jàpp da nga bopp mooy la mooy takkoo koor xam nga koor lu tax yu dox loolu ñàkk woor dafa ay buum yu muy génnee buum yoo xam ne day tànneeku ci yow jànq boo romb nga xool sa fit jóg soo xaatee tuuti sax sa benn gel fu nekk feneen sa del jóg ci moom soo xaatee añ da war a añ soxal nekk ci añ bi extra yu ne leen yëpp di fudd ci yow fekkee ñu ko ci kaw waaye boo war a dëgg mel na yooyu buum day dagg doo ñemee xalam ndox la boo xaatee léegi tey ñu yàq xol te xalaat ndaw sële ba sa dox génn nga yàq sa te yow sa koor yàq loolu kat ndaw sa ko doon xaar moom jël la ko fekkee nga ne gis ngoon jot xam nga dàgg na mooy mooy nodd sax day dagg mooy liqaam mooy juuj mooy jiite hmm? léegi-léegi soo gars yi dafa ne koor dañ koy bëri te yàlla na ngi ni ngaa nga def léeg-léeg nga gis ko xool koor bu foog nga ne xaaf ah, ëf xaaf ah, ëf mel ni effort bi la nga def bu ko gëjee lu leen hmm, loolu dañ ñàkk a yëngatu si moom ci la bokk rek kon booy woor day damm say xaal xaal yi. yaram bi sëriñ baju la ñu war taxaw ci yow booy woor dafay wàññi waxuma nag ku woor bu mu ànd ak soxna bu mu loolu alquran nee na yàlla daga nañ ci yéen ci guddi koor ngeen jonjoo ak soxna yi ngeen jonjoo ak soxna ci guddi koor ci guddi koor ci guddi koor xam nga koor guddi waaw kay ci guddi wëlbati bi la ci guddi koor gi moo tax dégg naa démb confiné quinze euh, weer koor quinze jours la waxoon dëgg bàyyi wax na weer koor quinze jours ndax bis mooy vingt quatre te doo xool vingt quatre yëpp gën a ngay woor gën a woor gën dog gën a woor gën dog kon boo xoolee yi nga woor yëpp quinze la yi a dog nekk quinze bu nga bal dog ko boole mu nekk un mois yàlla mën a maye nga yàlla la ko may <coughs> kon ñu ngi jeexoon démb woon tus ba su ngeen mënee muñ dañ takk jiibe bi xëy na moo gën làkkum ñee leen yàlla mi nga xam ne moo déglu lii kafuur yàlla la yàlla muur muur mooy ku nekk ci ñun am na ay ayib yu nekk ci yow am nga wasoo nag waaye kër ko bëgg kooku mooy ba yow moo tudd xafoor ku nekk yaa ko mu feeñ de kala ko muural na ba kenn xamu ko pour nag mooy yàlla mooy xafoor rahim mi ne yàlla mooy yërëm ak koom ba tey tey nag ñu ngi ñëw ci benn aaya <coughs> moo xam ne dafay leeral li tax yàlla digal ñu lii tere ñu lii ngir rek mu dimbal ñu yërëm jaam ñi defal ñu lu baax ci ñun te gën ci ñun te bi nga defee am teraanga tey ak ëllëg ak jëm aaya boobu tey loolu ñu dugg tey borom bi nee na suridullah yàlla yuridu bëgg na allahu yàlla li ñu bay na ngir ma leeral lakum ñeel leen yàlla ma bokku ci moom mi leeral bokku ci yàlla rek nag mooy leeral te mucc te te dafay ci lii lañ bokk ci loolu loolu utee moom ñun bu ñu leeral dañuy leeral bokk lañ ci biir dañuy leeral te yàlla moom buy leeral moom bokku ci parce que moom mucc la juróom kon yuridu laa yàlla bëgg na liy bari ngeen ma leer lakum ñee leen yéemu ca bu leen leen ba ngeen leera nag ku yëf di ko mu jubal leen la nga leen jubal mu gindi leen su na la sunna yoonu gaa yi xam ne ñun tabi ñoo fi juddoo ah man boobu fee nag sunnay gaa yi paasoon démb waaye su boobaa Alxuraan day nekk démb te bàyyi mu ne pour fépp la pour ñëpp la ba faw la kon tey ñun ñi nga xam ñoo ne ci àddina bi tey nii xanaa ma ne jamono bu nekk ña ko moom ñoo ne war a firi waaye jàngale ñooñ démb na lañ nekkoon ña teg ko dafa ñu tege ña teg xaar yi dafa yi ëllëg na ñëwagul boo ko jàngalee da ngay jàngale ëllëg ñëw ëllëg bu ñëwee ci li nii ne mbaa ñu mànk kon waye way yahdiyakum yàlla dañu juwal dañu gindi sunu si nga yoo xam ne ñun ñu fi juddu woon suma nag li muy firi mooy yoon sunna yoon lay firi sariyatu muhammad bi yoon te mo moy mooy yoonu yoon yi yoon yi pass yëpp bi ci gën moy bu yoon bi te ñu ngi wax yonent bi ñu amuñ droit jël suñuy gaa yére di ko la sunna la tarixa sene bi sunna la la tarixa la wala la tarixa tarixa la yëpp egsi nañ la te te ñun seen borom paase kon loo koy déggee kon yàlla wax na lii yëpp leer nañu ñun ñi doon dem nii lan mooy yoonu yonent Yàlla Muhammad lan mooy yoonu Cheikh Tidiane lan mooy yoonu Ibrahim pour nga ko topp te yàlla mii leeral lool nag yàlla lay doon waaye waaye boobu dana ko yàq waaye du ko yàq. dana ñëw ba tolloog ñun du nekk malaaka du nekk jinni malaaka moom jinni ak jinni ni da ko gën du nekk dara du nekk asamaan nekk suuf nit lay doon rek comme yow ñu lekkee yëpp lay am pour nga ñëwee ko waaw am na mel da ngay daw du ko njàng nii ñëpp day daw moom du ko doon rek. te kooku bu ñëwee sunna bi nga xam ne moom la ñuy xamal paasoon démb la nag waaye tuba aleykum bu yàlla nangu ci yéen tuub ba bu ngeen tuubee yàlla jégale tuub démb tuub la woon parce que démb tuub la démb tuub la tey tuub foog nga tuub yéefar yi danaan tuub dugg ci islaam suñuy ndaw sa tarixa bu ñëw ba jur foog nga tuub ci tarixa bi moo waxante ko naka la nga nga ànd nga tarixa yow foog nga tuub naka borom tarixa bi pour nga tuub pour nga joxal lay kon tuub fépp la moo tax bàyyi dana wax ne astafurlaa wa astafurlaa min astafurlaa et puis istafar yooyu bokkul ba xam wayante boobu moo nagu ci yéen aleykum moo nagu ci yéen tuub aleykum ci yéen tabalaaw yàlla mii xaliimun xabaakoon yàlla xamul yàlla moo xam kenn ko wax yàlla moo xam yàlla mooy xabaakoon bi maanaam lu waaye mën a mën a xam xam-xam lu mu xóot xóot xóot xóot xóot ku fekk ne yàlla njëkk a jaxam ko toog yàlla moom xamaakoon la rek yàlla buy xam day xam lii lii réer ko xamaakoon nag mooy lépp la xam rek moom dafa dara mën ko rek hakiimun yàlla ku xëy la ci ay jaam ku këriñ ci ay jaam la ku am xikma ci ay jaam këriñ ak këriñ jaam yi daf la te sooy mooy yàlla yow kenn yow dama la conseil loo mën a jege jege jege kat du ma yóbbu du yóbbu ci ma sama mbokk yu yóbbu ci moom xaamaa nangul toppal ci parce que yàlla ko këriñ bu nekk ci ñun ma nga toog fii la ngay yaa ko xam waaw ci yow dama lay am ci buy la baax kasale buy la bon kasale si la kon nag soo koy jëfee ci kam ay ay buy la baax dina ko ci baax nga nekk kon tax wala te mën naa jàngoro bi wala te am na bu baax am na boobu jàngoro buy walaate am na bu baax am na bu baax bi baax bi mooy ku baam ku baax jàngoree baax wa daa i wa dawaa i jàngoro jooju moom baax na ndax sax kooku wàll mu baax jàngoro yi yàlla wéy dina inkaar baaxul mooy du ko war moo la inkaar comme yow kon loolu la aaya bi wax zahir bango suñ jógee camaraate yuri la yàlla dana bëgg luy benn mu leeral lakkum ñeen ñu ñun ñii suñ diini diine nag ñaari diine ñaari façon la ñaari xaj la ñaari xaj la ñaari xaj nu mu nekkee ñaari xaaj yéen teel wax say sa ba mu taxee màkk diine bi ñu wax mooy lislaam islaam mooy lan mooy da ngay ñëw nekk yéeféer mu ne wax ak ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammad rasulullah nga wax nga wax nga wax iqaame salaat nga wax itaw zakat nga wax saw ramadan nga wax xaj bi dafa mën a mu bokk yaa ngi ci islam ñooyee ñoo ci yem loolu mooy diine sharia am na diine boo xam ne diine yàlla bëgg la diine xaqiqa la moom soo preuve mooy yàlla war yu def isaa jaa nasrullaah Issa Dia mooy bu dikkee ndigeef la dañoo gudd ñun samedi ñu pare kon li wër ñoo la bu dikkee saa yu dikkee lan nasrullahi ndimbal yàlla war fatuhu ak ubbeef gi war a ayta naas nga gis nit ñi naas yi yëpp kon bi ngay dugg fi diinillah bi boo ko nekk fi diinillah bi. addu mooy am addu maam nga am fi diini laahi islam ngay dugg moom fekk amul diini laahi dañuy islam nga am diine nekk fa yow da nga ñëw gëm rek wax ko ne ñoo xam ne nga bokk ci diini ñi bii ñëw ëllëg nag moom fii lay na fopp la fopp war fopp ko war a eetal naas yi dëpp woon na fi diini laahi affaajal affaajal dañoo fas it bi xam dara ko si ñu ngay sàbbal seen borom seen benn suma ba te ñoom indoo te ñoom indoo naka ñoom ñoom kaa nekk la tabaab naka suñ tuuti amuloo mooy la diine boobu mu tudd ko ci sabir islam fat wante li may ñëw fekk ñëpp julli ñëpp woor ñëpp asra mu ne ana kay julli naa nekk di ko ki ñu wooral nga ne gisuñ ki ñu ajal màkka ñu gisuñu ko de mun ana ki ñu gën a asaka yi ñu gis mu ak gis sa dana mbir yi ñu gisul ma déet yéen da ngeen na xam leen ma gars yi nag xam xam ne yàlla mooy xam yàlla ñu ne doo dégg doo di benn bruit xamul suuf si xamul nit ñi mooy mooy dekkal bi ay safara man loolu mooy amal yàlla bind waaye am xamoo ko yàlla قوم ديال الامر قوم ديال الامر قوم ديال الامر قوم ديال am ñeneen ne waaw xam yàlla mooy xam xatte julli julli xam na xam islamiya wala islamiya way jàpp xam na ndajee sunna da cee farata ay mando bi ak yooyu nga xam xatte koor ga da ci yàqu na am na am loolu mooy xam yàlla su daane som ay mu naat kii ma diin laay moo tax diin laay la yor moom duñu sore bu gaa yi yow pare mu ne yëpp da xam ñu ne ko li yàlla a xam yàlla ci jëmmam ci melawam ci turam ci jëfam yàlla yàlla yàlla man comme yàlla wax na man maay ëwal kon dellu ci wala far ci yàlla waaw sax man sax dem ba yàgg la nga ñëwut a wax léegi ñu ne ko wax tey la nga ñëwut a wax yàlla ñoo dem xëy ko nga ko caax sagal te nga sagal ko si dimbali tuuti ji rek nga ne aadama laa lii ma génne yàlla yàlla yàlla yàlla ma di yàlla hmm, génne wax dëgg lislaam yàlla te boo nee am na charia la la ko na ci ni wax yàlla te ni koy xaraama moo tax borom xam-xam ñu ne ku ma yàlla dana war a rey waaw ku yàlla dégg nga dana war a dégg nga ñu la rey bu la rey bu kilifa bu la boo déggee xam ndox la léegi mu ñëw wow tudd am melo am pour am léegi nag soo ko soo soo ko subaatee ci ndox mu ndox dafa tarbiyee أعلم الماء أعلم الماء أعلم الماء تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا yàlla muy sëy muy sëy muy sëy muy sëy muy sëy bu dee ba rek meññ te nga ne ana ndox mu ne man maay ndox te moom ñuy def wax maay ndox ba te ñuy def est-ce que ndox du ma may est-ce que ndox moo war ma may est-ce que du ndox moo war ma may ndox parce que daal moom ni ko def comme ni ko defoon man taxawaay ndox bi bu nekkee ndox lay doon waaye bu dee ba sëy nag nekkatu fa ndax yaay kan amul ci ko moom mën a am may te yàlla may may li dox naa loolu mooy ay na loolu mooy jàng dina yàlla yi la leen amaloon mooy bàyyi bi yàlla woon isa jaa nasrullahi wal fatu warat naas bi ma wax léegi bi ñuy fii dafa ne waqat jaa nasrullah waaye léegi nii lay wax rek ah yéen daal loolu ñëwal ba pare seet bàyyi bàyyi na moom xam nga ne moom du nga ñëw na ba xam na ko xam na xam na ko te moom moo ñëw ci moom bàyyi na war jaa waxat jaa ah waxat jaa dikk na bu dana dikk rek dikkoon na de <coughs> bu doon bay lay a dikkoon na. Ah bu yëndu bi ñëw mu ne ñëwoon na nga wala ñëw waye bi ñu waxee ma def ne moom dafa ko présent waqat jaa waqat jaa nasrullah nebal yalla ndimbal fu ko ko bi won ta ci ko kusi bu tuyaan am isda am waye am am bi yonent bi di sante yow ne am mu ne di ya am dafa suñ ko alim mo ta ko ko dama kon bay day rek ahmad moo tax Ahmad yonent tudd na Ahmad Seytaane tudd Ahmad Baye tudd Ahmad yonent sam tudd na Muhammad Seytaane tudd Muhammad Baye tudd Muhammad daa ko ñëpp nekk kon suñu gaa yi suñu gaa yi xam nga mooy lan sariya sunna la tariqa sunna la xaqiqa sunna la te lépp duma ko su ko wéetee ba jàngal ci benn xam si sa salam in sa waxoon nañu ne alléku bi suuti ba suñu professeur Rafidine te si daa professeur Rafidine yi amoon démb Rafidine mooy te Rafidine sax ni ko sa mooy lan baat bi dañuy firi Rafidine mooy yan moo ñu jub ñii day jubal ñu jub ñëpp ak di jubal léegi nag Babacar yónni ko ci ñun Omar non Ousmane non Aliou non su dama fay yëngu ngay rey dara xam nga rek looy chat yi loo rey bay bay bay xam nga la ko koy yëndu que nu booloo moom moo tax te dama waxtu muy feeñ ëllëg ci lay lay feeñ te am suñu feeñ ci wilaay moo tax boo ñëw moo tax aarif Ibrahima sax ñoom bu ñëwee ba ca bàyyi day ñëw xulafaa xulafaa yi fu ngay feeñee ñoom ci bàyyi bàyyi ne dëgg la xalifa yàlla bi loxo nuwaabun bu xulafaa wa nag bu xulafaa wa masaay wala fii la ñu feeñ léegi ñu démb ca màkk ba ñu ci gën bàyyi suñu moo nekk fekk ci moom topp ko tey suunal tey xam-xam la muzakara la. toppal te moom jub la te mu rachid moom nga ko dox jub seetee la ko <coughs> tey boo ko dee tey suñu te boo ko toppee jub bi ñu te insa bu ñu waxtee fii tey ci kër bàyyi ñu defee par nag ñu doon war a te ñun sax saxaaba yu góor a ñëw wala boo saxaaba yu dina ca kaw ca kaw saxaaba yu a ñëw li ñoom ñoo ko jiitu ñoo ne saxaaba ñoo ne ba dem moom mu góor a ñëw am yéen nu mu tudd yéen moo leen jiitu woon waaye boobu xàq min kam jiitu leen waaye ci xàq leen jiitu waaye ci masar moom jiitu leen noonu génn Ibrahima di ba gaa yi gën ba moom dër moom dër gën moom tëj ñee nag ku gën a bopp nag secrétaire bi Cheikh ànd ak ñoom secrétaire moom tamit ñëw saabal moo te ñëw moo te ba pare sala moom door ñëw moo te kañ tarixa ah ëpp na kenn daal këy tarixe bi ànd ak ay gaa yeneen la ñoom tamasu yi ñoom arasu yi ñoom misu ñoom ñoom muro ali ñëpp ànd ak Cheikh Thiel ñoom ay ci mosal ndaw day leen loolu waaye nag gis nga yàlla nu lay defee kii ray yooyu yaa defee ci àddina bi nag loolu moo xam lii mooy ñu bon suñu yéen suñu yéen la ñu nekk woon ñun tey waa tey suñuy garab la ñu am. am Ababacar am Ousmane Aliou ni ñu fooree nga xam ne ñëpp ñu exemple ba pare ñu seet yàlla. sëñ dégg nga da ngay dee toppal ba mu jaar saa bi yëpp ba mu jaar yëpp ay tànn chef yàlla moo tax yéen sa sa sa dañuy joxe ak ñu ne ba ñu waxtaan ñu ñaan dina ko asaabu ko asaabi ko traversé ko traversé amuloo parabole asaabu ko asaabi lu muy fi ah ah ba traversé ko traversé mooy la ah ah ah ñu ne yow yow kon saxaaba yi tey loolu kenn ñu ma ko tudd tey car bi nag yaa dem la feeñee dëgg-dëgg ñu koy wax ni ñu ngi sax saxaaba bi bi ñuy feeñ kenn feeñagul saaba seetaan moo njëkk feeñ taabi dëgg taabi sant te Ababacar Omar Ousmane Ali de sax xoolal ni ñoom ñoom ñoom ñoom dañu tourné nooy nekkee dañuy tourné nii nekkaat ay dañuy tourné nii nekkaat feneen dañuy tourné nii nekkaat ay ñoom dañu tourné feneen nekkaat jaxaat tey boo demee ca Aadama dem ca Moussa dem ca Cheikh Tidiane dem ci Imam Mahdi ñun ñëpp taal bi Cheikh Thiel yàgg na fi de. xutuma ne wax Arma Baye maa ngi woon ci lii. yéen sën nañu xam nga xëy na bii nekk fii ngeen baal ma wax benn nax yi. xóotiin kan kan ma ko waxoon ak kan nga dañu koy wax seen maa xam la ñu wax ñoom. yéen moo xam ne ma nekk maa ëpp waaye bu nekk tiim seetaan xanaa maa ngi fi déglu nekk maaw te ne xam ne ay gars yi nag ku nekk nga gars ne nag benn may wutiin te benn maa wutiin dëgg am na dëgg dëgg moom ki nekk diggante benn maa wutiin mun na kenn ku fa nekk mu nekk xaq ko xaqaay boobu affaire la kon solo la si solo gaa yi nga xam ne ñoo mooy lii lii nag soo ko si yàlla ko ñun ñun tey jamono tey nga tuub tuub rek buñ xamee nii rek lii surtout am tuuti rek alors moo tax gis ak ay semaine ruuxu semaine. yaram sowe la xol sowe kañ ruu laab na yaram laab na xol laab na kañ bàyyi ba li def sii li fu addi li ruuxi kon loolu yëpp sobe la waaye wuru bu demee ci saanam yoon dem ci ba dem ci saanam dikkaat day laab bu dëkkaatee nag dootu nekk dootu nekk yow ruuj gi nga moom yow ak yaram moom yaa ngi toog nii yor koo dina mooy amaana amaana bi la jox moom ni man na yàlla ne hey ila la ko ñu ko moom kon ngay tëbe yàlla nag ànd ak ñun ci ñun tuub ñun tuub wala yàlla mii kat àndim ko xam la balaa ne moom tawaakoon la ak kii mun ko këriñ la këriñ mooy lan këriñ yàlla moo këriñ këriñ këriñ boo xam ne këriñ ba yàlla ma nekkoon xaalis ñu koy tudd ay nay ma nga xaalis ak fu ngay dugg ak tëb as asman ni ëmb du doon xaar am diini seetal bi nekkoon faas dañuy tariqa ani nangam nangam nangam ñëpp gëm bàyyi seen fii Sénégal ani fëgg ba ñëpp gëm yàlla mi nga xam ne mooy xàkkim nag mooy xàkkim moo xàkkim mooy xëriñ moo xëriñee xëriñee xëriñee ba kenn ku nekk ci ñun mën leen ko si ba kenn ku ne yëg na nekkatu yu baxut tëbbi xur bi yàlla sori na nekk naa nga yàlla sori na nekkatu yu seetaan sori na nekkatu yu bàyyi sori na nekkatu yu lépp nga da ko présenté kii mooy xàkkim ku mën na def xale mooy hakim kon kii mooy hakim alim naa kii ñu ngi sant yàlla ci aaya bi rafet na bëri na ay maarif te des na ay dégg-dégg bu la neexee ñu demaat ay moom benn a jéem yurullahu la te aaya bi da jël yóbbu ci benn xaral kese benn xaral kese lañ mën ko firi ak la ko xaw man yu la yàlla boo gënal mu leeral leen làkkum ñee la lu muy leeral yéen ñu nekk baqaaw xamu ne woon li xew de ma leeral leen fi nga nekk fan soo ko bëggee firi walluhoo ci àjjana walluhoo walluhum fiha wa awluhoo am na noo koy firi soo bëggee wax ne mosul jannat lay wax waaw fiha mooy fan présent la wala futur fii à présent la wala ci ajam fii ci ajam fii lu fa nekk anaaru min fu nekkoon asab day fii à waaw anaaru min fu mu nekkoon nubuwa day fii à ana min xamri fu mu nekkoon wilaaya day fii à mu ne xasan fu mu nekkoon kelaam day fii à te waloom ñeer ñoom ñëpp lu mu feex ñoom ñëpp nee leen fiyaa nga nga kon fiyaa waaw fiyaa bi mu leen la yéen si bu leen jubalee kat yéen ñu moom tey comme yoon tey nga ay ñu nga xamante tey mu la xamante démb yëpp ñu ëndi ko demee ko tey xam tey ngeen may xam foofu tubaab yàlla na ko seen yëpp moom seen picc wala baqaam te tuub pire balaa ko yàlla nangu ci nit foog nga xam ba nekk asal da nga tuubaat dugg mu ba da nga tuuba da ngay tuub dugg wilaay ba ñu xam da nga tuub dugg na xam boo koy duggaat baqaay la xaal dina fi xaal xaal waat na ko dugg ma xamul tuub wax dëgg loolu day na waat kon ñu ngi bu baax aay bi ndax boo si jëmm lépp fii tey te te lii gën a garaaw aay bi kenn ku ne mën naa woon yaay moom mën naa woon noo nekkee moom ba tey aay bi yow yàlla bëgg na ma leeralal leen ma leeral seen bopp yi yéen yéen ay ko ñeel leen laa ko ñeel leen laa ko mu leer yéen a kam te mu jubal leen xam ne yéen yéen seen bopp mi ngi jug ci ba léegi mu xamal leen ko sëñ bi suñu yoon gaa yi nga xam ne démb démb démb ñoom paase woon moo xam ne seen bopp tey si yéen a paase doon seetaan paase doon bàyyi paase doon yàlla nekkoon ci kon yàlla bi nga xam kon kon tey ku hmm? ko ku kër waaw euh, beneen aaya bi si topp dafa takrar ngir leral parce que wax na wallahu yàlla yurid namuna an yatuba dan nangu tuba bani sir bàyyi ne li waral takrar bi pour leeralam la moom yàlla waaye waxoon na ne yàlla dañ len nangul sen tub waye takrar na ngir leral parce que da ngay dégg surtout baax ñoo ne la répétition pédagogique répétition pédagogique la loolu tamit yàlla def na fi takrar na pour leral mom yàlla mu tax mu ne wallahu yàlla yurid namuna an yatuba nangu tuba bani sir waaye nag mu ñëwaat si ne wa yuridu namm na allazina ñaaña ñi nga xam ne yattabi'una dañuy topp ash-shahawaati mooy seen bànneexi bakkan yi bànneexi bakkan nag ñeent rek la wax ne ñoo koy topp mooy yahuud yi ak nasraan yi ak majuus ak njaalukat yi ne ñii ñooy topp seen bànneexi bakkan yahuud yi ak luñ mën a jëf si seen bànneexi bakkan lañuy topp nasraan yi luñ mën a jëf ñu mën a wax seen bànneexi bakkan lañuy topp majuusi luñ mën a jëf luñ mën a wax seen bànneexel ak bakkan nañu topp parce que bu nga topp loolu ñëw si diine yonent yàlla Muhammad diine ji képp ku ci mën a nekk di njaaro sa bànneexi bakkan nga topp kon ñeenti ñii ñoo topp seen bànneexi bakkan nee na ak ñi nga xam dañuy topp seen bànneexi bakkan an tamilu ñi jeng may lan jeng koo xam ne asiman bu màgg la yuridu namm na allah yàlla an yu xafifa na woyofal ankum ci yéen mooy dafa bëgg atte yi yomb ci yéen lu yalla na wax xuliqat bind al insan nit fam ci lott nit dal yalla moko bind ci lott ba mënta muñ jigen ak ba nek bakaram wa lor moy ay bi amna na ay sa ay si nekk jërëjëf yàlla mi ngi takkaraar tuub tuub dañ ko koy takkaraar misaal ba nga tuubee ci jamono yu jàll moom asalaamaaleykum ndax bu setañee nga wéddi ko yàqaloo su bëggee baax nga def da tuuba bàyyi ñëw nga tuuba. kon tuub yi mu bëgg a bëri te yàlla foog mu takraar tuub léegi nag aaya bi li ci bàyyi leeral noonu ci saxoo yi bànneex yi mu ne benn na ko yóot mbaa nasaraan mbaa majuus mbaa njaalokat kii ma dafa tamit njaalokat la wax rek kii ku la ci la muy góor muy jigéen muy ku teew fii ak ku teewul fii waaye ñoom ku rek ñu gis moom boo ci bokkul sant yàlla boo ci bokkee rek tuubal rek yàlla du ñu tuub waaye mu ngi wax léegi buñ ne majuus majuus gis nga sa ruugi digg si yaram bi te la xamoo fu mu majuus ruug majuus parce que la may jaar te lënd lëndëm nag ma fay jaar dugal ci lëndëm jël ko fu lëndëm ci yow yow ci yow mi ko sa taxamal lépp lëndëm ko ci bi ma jël fëgg ci say dox sa yaram gii yëwut la yaram boppam yàlla rek yëwut la xam nga baatu yëwut ak ak xuddaa dafa jegaante yëwut bi mooy bu réeree bu jubee nag hidaaya bu gën a borom yaram di xol bi mooy nasaraan xol mooy nasaraan parce que xol mooy inkaar mooy weddi weddi yëpp xol moo koy xol bi yàqu mooy weddi weddi rek waaye moom tamit xol bi ñu ko defee rek mu saxam mu dëggal kon bu nee majuus jàppal sa róor bi majus dem ko ngur borom bi subhanahu wa taala bu ne yahud jàppal sa yaram bi li ñom yahud la inkaar say say bu re nasara jàppal sa xol bi bu bu dee kat na mooy sama kan bakkan mooy njaalokat ñun ñu ñu jiw saayal ko amna ay majus yo xamne ne yalla amna ay yuróot yo xamne ne yalla amna am na sax yoo xam ne gëm na yàlla xamuñ ko ci façon yi ko gëmee way waaye jàppal njaalakat aussi am amna fu ne ñu góor muy jigéen zaal nga fa way baat yaa man yo ba tay fofu ne yalla mo ne wayudu laa wana wana nga wala wala yalla yuridu bëgg na an yow toppoo mu nangu seen mo nangu leen tuub alekum ci mo nangu tu dina ko dugg ci yéen te bëgg naa doom yàlla su ne gaa yi xam ne tàggoo nañu seen bànneex xam nga day mel ni fii yàlla bëgg voilà. non gaa ñoo bëgg. ay bu njëkk yàlla ay topp seen bànneexu bakkan lay waxal waaw ñoo bëgg mu ok dana bëgg xam ñu wala seen ñi topp bahkan bakkan bi ñoo bëgg yéen ngeen jéng dëgg yàlla nag dafa bëgg yéen kon wéyul la wéyul dina bëgg ëlsi gaya tamit tam dañuy topp sama seen bànneex yi ante na ngeen jëg yéen ñi baax ngaa ñëw na kay war ma laaj far muy ñi seen bëgg ñi ngeen may na asimante te yéen loolu xam ngeen tey semaine bi leer na da am xam ko bu leer bu ko waxee di ko jëfee nga génn am ku ko tiit mu récupéré la te te du dina la ca xam ne ku dëgg may na asima xam na ma dama nekk may na asima yow nekkoon nga ca xamu ñu am fóon nga bàyyi ko ñëw ñëw pare demande ma nga demande ci àndam kon may asma leen te nekk jéem bu mag. ñaari baax nga ca kon wala dana bëggal ne tamit tamit dañuy topp sax waa seen baneex an tamit ñu jéngal leen may leen jéngal suñu dagg léegi nag aaya bi saahir bi saahir bi aaya bi dañ ko firi na ko pare dama koy laal rek waaye loolu la wallaahu yàlla yor du bëggal an yottoo ba. an yaa tooba mu mu nangu tuub aleykum ci yéen mu nangu tuub ci yéen yàlla bëgg na loolu kon yàlla bëggoon ko tuub ñun vraiment yàlla bëggoon ko tuub quoi te nag bu rëy tuub te it ba kenn ko baax Cheikh Tidiane xëkk maam su nga chaque jour mu la wàllu istifaar téeméer yoon ci julli bi ci wëso bi ci ci ci nangam bi euh, euh, naas bi nangam bi kon kooku xam nga tuub mu jeex ci nit bàyyi nag ñëw efface tuub mais tuub jeexal fekk tuub amaan na tuub bu amaatul bàyyi du bàyyi ne fan nga dara wutul mu mu ne ba nga saa wutul tuub amaan mu ngi ñëw doone na seen heure bi ci ëpp. fi doon maanaam ak kër gi daw ko lu tax li tax soo ana aadaaba suluuki bi kon kon nekk amana tuub parce que bu dee fanaan baaxoon na jeex ngeen ci moom pare ba def ba jeex dem sa nga toog waaye déedéet jox leen lépp yi. ngir leen li tàggu su ana ko ngeen japp ci ñun baye adabu suluk teggi ni nii suuf kama akas ay ko bés bi comme nga ñu ci ba japp ak ko bés bi ko bés bu ak ak fi am bokku on do fi tu amana fi lépp alquran wax na ko aaya bo xamne ni neex tok ci alquran ci ñuy ak yi seyru ta amagu lu seyru lii ay guddi am na ak bëccëg ci yàlla ak bis yàlla am na guddi am bëccëg am bis comme ni ko amee am na nga wéddi parce que a guddi mooy lii bëccëg mooy am wax dina ay audio yooyu baax yàlla demal ca suura sori saba yi bokkul maa ko waaye léegi am ma am lu ma lu ma lu ma yi alquran day wax ne wa jaxal naa baynahum wala wa jaxal naa ñu def baynahum seen diggante diggante kan ak kan loolu wax ak ak diggante waa ak diggante dëkk yi waaw seen diggante ak diggante dëkk yi loolu mooy la kon ki nga xam ne nit la may nit nga def fana ma def fana ma def baqat ma def fana maa yow am biir te maa yow ah suñu damaa am nag problème waa jana béy na waa béy na xurra ak dëkk yi tamit dëkk yi ma xamante xamoo dëkk yi te dëkk yi ci alquran la bokk te ci tàmbu yàlla bokk dëkk yi ak réew yi borom fayda bi wéy na ay dëkk wéy na ay réew wër na lu nekk dem na man ba mel sax mu ne man dëkk yi ma jëlee ba lëf dana xarit gis nga wa ahwaal bilad ci nëx nëx yi réew yi takkadar maanaam ci ci mbir réew yi mbir réew yi wa in naa ko xuraa wal mun naa bëxal jibaala la lépp aru na fa wala ñu di وقبل سجي جديد المناسب كيف علينا من الشاعر المتحمس كيف بغير القدر النبي ياسمي المقصة الله سبحانه وتعالى loolu ma foofu rek mu ne nga ne léegi réew yi ak ngiri réew yi ngiri réew yi nag ñoo nëx waaw ah, ñoo nëx ngir réew yi réew yi moom gars yi gëm gars yi gëm nañ leen mbir yi fa nekk moo nëx kon nag ba benn xura mbir réew yi moo nëx ku ne xam ne lu boo am na julli lu mu sànq sànq moom dana xam ne lu boo am na wilaay am na xilaafa am na xanaa du xam sa réew la nag waaye du xam sa réew la fekk réew la nag te réewu nu boobu réew la am na peuple am na loo am fii am na fa réew mi ci bopp mooy nuur nuur mooy réew nuur mooy réew nuur état yooyu mooy bërëmu réew mi Moussa ambassade la Insa ambassade la peuple ba nga mooy ne ñi nga woon na woon peuple lañ ñi gën Ibrahima peuple lañ ñi ngi peuple ay couple lañ manqué ah foofu waaw dégg nga métisé xam nga peuple léeg-léeg mu am ay ay ay ay ay na ay am na ay ay na kon ñu ngi yoon ci ma bàyyi suñu leer la day gudd waaye naa ngi fi ci bi rek wala yàlla yuridu bëgg na an yatubu mun nangu ci yéen tuub wala ngeen tuub mu nangu leen aleegum ci aleegum ci tuub rek gàtt na waaye lan la wax yàlla na ma yàlla na ma yàlla bëgg ci yéen mu nangu ci tuub xam loolu muy firi yàlla mu ngi xaar rek def na bind la wax na rapport taxut la kon xalifa yooyu ci kaw suuf si mooy taxaw moom xam na ne ñëpp soxla nañ waaye moom moom itam soxla na leen waaye yéen seen soxla moo leen jëriñ ci moom soxla na leen ngir lan ngir nga ñëw ni am mu dox leen ko leen soxla moom pour yow da nga mën a jëriñ ci lan ak ci sa bopp rek kon loolu moom wallaahu yuridu an yutubba aleykum mën nga ci tuub soo que waxtu ba ñëwee ci moom rek moom dafay jël jeexal jeexal waaye des bu fekkee nag léegi nag bu wér nga da nga diggante ba faw lii la am doo am na doo bëri tubbiwaat am dox dox dox dox dox dox ba mu yàgg wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ne fexe ko koy a a nit daal moo doy waaw nit moom la nit dafa dañ kumpa nag kumpa la bëgg kumpa ak lépp nga sonal la gën a bëgg nit bëgg la ko yow bu yow la mu xet yomb a nekkee loolu moo tax day wax ci moom waaye ku xam guddee moom day wax xam nga day bu ne ngelaw borom ngelaw daal moom daal moom dana andi ak borom garab ba mu tekkee garab moom la ko suñu wàll ñi fi ne ñëpp xam nañ li wax waaye ku doon fi tey xamoo dara ak yow da nga waaye ñii ñii la la sëriñ bi. dem kër ga nga ñëw kër ga may dem la dafa suuf boo xam ne dama dama doon su ma nekkoon ma ne kaa teg ma kor loolu wax bi daal jàng teg ma kor su ko kor nga ne maa noor sonal dañu ko da ngay dem dem Dakar bu ñu nee Dakar nga ñëwaat loolu lépp moo xam ne waxal boo ne li muy firi moo tax yàlla a ko woon démb bu nekkoon ci yow xamoo ko woon bàkkaar bu sumee ko ñu ngi ñëwaat kontaan bi sax kon mooy yooyu dana bëgg nag dana bëgg léegi wax nga dëgg ndax dana bëgg li sa gars yi xam ne ñoom te tamit ñu dañ topp ak soxal seen bànneex bëgg ñoom ñu am nga ñu bëgg en terme may la pour ngeen jeng rek ànd ñoom est-ce que kii ne ci ak fi dëgg duñ ci moom duñ mos a coow bu ñu mos a bu dëgg. xam nga dafa na du nangu ko bon dina xam ne ca mbor la ki bon tamit fiir na ko ba yëg ay digloo day tappale te ki ànd baax moo ci perte parce bi mu waroon jël ko yàlla wala da ko jël da du muy li des rek du muy rek tool yi ke ñëw ba ca bay am photo dungul ko am photo amugul yaakaaroo amugul yaakaaroo ki am maare fana moom lépp lañ dungul parce que am fana moom yow da nga mas la waaye yow picc nga gëm picc xam nga picc moom dana mas la ak tuut tuut picc day mas la ak tuut ah bon parce bokk ñu ñaar xam nga koy bokkuñ xam nga am nen moom dara moom. maanaam moom bu bëggee nag du du du tàgg te moom toujours la koy ko def jamono bu benn su man naa kawee man koo laa dëkk yaa dëkk si yow maa jëm man suuf ñoo bokk lekk naan bi waaw ñoo li ñoo ko bokkale léegi bu ceele bi ñëwee ceele bi ñu ngi ca kawam bu ñëwee ceele bi bandi la te ñëw rek këf yi du dóor da ko nekk tuut mais kéem ne eh, doo ci ne am damaa yamoon sama ma nii man ñii di nekk di jàmbok yow yaa sama mbokk ndax am ma li may la Arif dañ defante ñëpp waaye du dëgg ci moom Arif daal dëggu mag te nekk تتجنبين مرة تتجنبين مرة تتجنبين مرة العادة مدة بتاعها مرة من قال لك نف تدمر لا في يعني أنا بنا على بو دقر قلنا أنا كي آية أصلا ما دقر قلنا أصلا ما دقر قاي مع الله بعدين يصدف مصر دم بزيارة روض عبد القادر الجيلاني عندك برهم جوب أجر آه،

rafet taxawaay loolu ku toll nii Barham bàyyi ko na ko man nag boo ma demee man boo ma demee ba Timbalaour man xam nga loolu bëri nañ ñu ñu ko si ma mu tëdd ma ñaanal ko yàlla jërëjëf man ma nangu ko ziara nga dem nga ñaanal koo day ngéej ku nekk tijaan xam nga dama ne gis ngeen ay yu bëri wax fii sax am na fi ci am na benn ay di nga tax wax yàlla tamit kum problème lu ko def nen la ko waxaate ay boobu xam nga yàlla <laughs> tamit kum problème képp kuy fii bi daa ngi nag mu nga tiit nekk mu nekk tijaan xam nga loolu doo ko dégg lakk lakk di ko bambara li li la naka xam nga su ma waxee dox si la am naa ko ne ànd ak sax xanaa dana jax waaye est ma ko firi bi neexal ma affaire bi waaw lu wax ana Abdoulaye yow lu baax. man maa ngi su yàlla su tàggu si su yàlla nag yàlla bi su man muy ma waaw suuf suuf suuf wilaayat la man ana wilaay jàppale bi nga gis ko wilaay jàppale bi gis ko gis wilaay nga ne nga ne wilaay mooy yaram parce yaram boo gën a fóotoo nga naan mi naa boo fiyaa foo jógoo yàlla fu jógoo fi ngay daloo kon ban suuf nangu rek nangu rek xam nga suuf si yaram ci suuf si yaram ah xikma la xikma xam nga fi jógee laaj ma yàlla dafay créé asamaan créé suuf muy góor jigéen mu créé amour amour seen diggante ñaar gis xiin balaa xiin góor ak yéen ñooy def amour ñu bu góor ak yéen jigéen ñooy def amour buñ seeti ñu ñaar ngi wëssu mu ko am dënn yi ko waxee mu ngi yàlla bu bu bu oto wàcc rek su wàccee nag suuf faay laal ndox mi nag mu demee mu nekkaat góor su nekkaat ndox nekkaat na su nekkaat jigéen mu seey moom nag léegi la suuf si ba pare leew nit na yow ni yàgg na foor yow nag yow liñ suuf si meññal ci loolu ngay lekk yow nga lekk yëpp suuf la génne looy nit lekk suuf la génne te lekk ba suur nag yow léegi nag loolu mooy suuf la suuf nga lekk su sa su nga lekk suuf ba suuf nga siy a suuf la loolu la waaw loolu la loolu la maraay <laughs> suuf la waaye loolu lay doon parce que lekk yëpp suuf la lekk yëpp suuf lekk yëpp suuf naan yëpp asamaan naan yëpp asamaan hmm, naan asamaan waaw sant yàlla baax ci loolu léegi nag Cheikh Tidiane dañ ko laaj benn maa tali bu ñuy wax Moudou Khali Moudou Khali tali bi Cheikh Tidiane bu mag la dafa ñëw Cheikh Tidiane ne ko Cheikh Tidiane tey mu naa ma ko du ma sëkk lañ jëm لولا تام ما يسكتين سما كم أبو كوري لوما لولا كوا أما أنا أنا أبو أما أنا أنا رجع له أيوة أما أنا نجا من مي فبريس ما في توكيا بيبل نجا من مي كم أرضي كم أرنا أم نتودي آه. waaw ma dama ko xaral de xaaral waaw dafa a ana aru rek waaye kal at mel ni mel ni lu may suuf si nekkal ko benn wala awliyaa nag wala awliyaa la nekkal mu muy suuf si wala awliyaa kal ak jaar te xam ngeen ne asjaar yi garab yi fu ñu sax suñu lay sax bu loolu fu ñu sax Cheikh Tidiane taxoon moom la dugg jaani ñu tal bi nga ne ma am na ko am xel nga ne ko am xel ku muus ne ma sama jaay man am garab bu sama tudd bu sama man ban garab mais géej gi gis naa garab yi sax bu bu bu mu Anakuwa barko suko ba ko. Muba yun kaya ko masati wala ang mire, lagi din nag-isip yan. Kaya lang. Hindi ka po. Mukhang na nakasawa mo. Ang lagi upo na no. Dala ko kayo upo ko yung bong bong ino. Mana kung ngayon ko rubili. na kaya. ndox mu nekk seet ndox mu nekk suuf caasal lool gis ngeen ndoxam nii du suuf waaw moo soxla garab yi lii mu ngi bokk ci karaama seet yaan yi te yaram mooy seet yaram cër ya nekk cër cër yëpp sax cër yi may wëlu yàlla tër lu euh, mu tëdd fàlle kama gis nga cër ñuy wëlu yàlla cër nopp fu mu sax nga bëddee ko rek ñàkk ku nga tëbb taw xan obaat bi yaram koy taw bët fu mu sax ba kam nag taw ba cër yëpp jeex ñoom cër nañ sax di bëddee ba ñàkk moo tax képp ku am nopp te nekkoo tiijaan seeta nga leen boole ak yoon ëffin dóor leen ñoom ngeen tërixam waaye boo jógee foofu demul seet yan nag seetal supp la ko da nga ñëw seet yan mu rey ni la lekk la siyaar la nga nekkal nit ah, waaw seetal man tarax boo mën bokk boo ma wéddi ma dugal waaye fa bokk boo ñëw ma fa permission am seen dara wàcc kon aaya bi na wala yuri bi bëgg naa man yëpp boo mën na ko ceen aleykum tuub mën na ko ceen tuub yàlla boo na ko ceen tuub mën na ko ceen tuub bu ko waxee ne bëgg am ngeen nan leer day tamit parce que ñun ñëpp am na ñu bi ci dafa ñu tarbiya ñu def def dafa nee na ma taxul ak raw naa jabar ñu a encore na ko suñ tuub mooy mu defal ñu ruux yu sell yaram yu sell xol yu sell ci benn kii waa fàqat ak arna bi doy loolu amaat bi doy rabbi xam mooy loolu bii ñaare fi ne àdduna bii ñaare fi ne kii nga xam ne dañuy gis safara la ko jëmee ak kii xam ne dañuy gis ajal la ko jëmee te ñoo ko war a ñëwoon parce que li muy nekk di tudd àdduna mooy li nga ñàkkal te xam maanaam tudd nga tudd àdduna soo ko xamee yàlla nag da koy effacé mu nekk wuyee wilaaye te du dellu fi nekk nag léegi d'accord ndax su wilaaye taxawee àdduna ñàkk su àdduna taxawee wilaay ñàkk te wilaay moom du ñàkk wilaay moom waxta ñàkk hmm. kon chacun boo gaal yéen ñi xam nag set nag ayib yàlla na la suttu wax na ko pare ba ngeen xam nu mu tëddee léegi nag am na ñeneen groupe ci àdduna bi di wax ne yow yow ko baax te ñoom ñu ngi bëgg la si ne nga xam itam ñu ngi topp ci soxla bànneex mooy léegi lu leen neex ay na am fot saa mii dafa day benn waay tam dafa ko waar saa di ko waar. lu war ñett wax waaw boo defee ne jàpp na lu waxee pare mu nga pare mu noonu yow dara bàyyi du ko say say yëpp nekk na may nekk na dañoo da nga foofu kon nag am fot moom nit ki soxla nga ne ñoom man waaye tam mooy gën a bëgg a ñoom ma nee gars yi gars yi tam may wax waaye yow te yow rek yow yow benn dox bi benn bant dama ko nga bant bi la ma xam càll to ɓangare bandulima kam tan tanna ko waw e mom tammogani tanna ko waw o golima kam ten ɓama kam annata ko ceela mino ko maɗɗammo ko doko soma jaɓa mo togono ceeb mo lakk mo bato bi lakk mo togon ceeb mo dundu yow la joxam yow yow da ngaa tum dara mu ne ko waaw yow la jox wante moom mu ngi di bànqoo gàddu ne dara loolu la a yëpp aarif li ngay wax yëpp sant bu njëkk dañ la napp bu njëkk nekk aarif bi lay xëy na yaa buñ ci waaye am na am na ñu ñu napp ci yéen ci ñun daanaka gig ñàkk nga dig naa ko ci alquran gën ko moo tax la gëj ko duut ba pare xam nañ nekk bi. suuf si ñaata pepp la. xoolal toog yàgg ma leen waaye ñun sax bëri na ñaar pepp ndox sax xam naa. ndox yi par pepp yi boo ko par pepp xam ñaata la jëlee yaa ngay tiit ngay naan naan maaral la. garab yi ñaata xob laa. lu mu bëri bëri kat xam nga lu mu wax. benn litre la parce que boo defee litre nga defar benn mu ne bii lan la litre ma ne ko litre la ba tey nga defee nag litre la ma ne moom nag bëgg na boo xam ne na ko moom waaw waaw waaw waaw li ñangal defe na xam nañ daal xam nga ñaata gars yi di ko yëpp xam nga daal ñu ngi yëngal fii dañuy yéene wax moom yii daal wax naa wax nga dëgg yow man yow man sa loolu daa na ko wala garab gii xam nga yàlla comme la benn benn benn mesure bu sa war a def loolu man benn mosu de ma déglu ma lii nee na ma bu yàgg na mun na yow amu foto ma ko wax ma ne garab ñaata moom ma ne garab gii ma ko ñaar bon kon yaa yàlla dafa am ko déedéet mu ne dula garab ko yow dama nekk la mais ko ma ne ko déedéet ko ma dagg benn garab benn xob ma dugg benn bu dund bi ma dee. te yàlla dee. ñaata la. mel woon man. benn waaye Saalum. boo maa nekk fii tudd ma ma sama xarit ma ba yàgg rek mënu ma dama soppi ko. li mu tënk lu waay waxee man man man waaye waaye man dama dama koo sori su ma ko góor ñëwee ma koy naax rek ma koy naax ma koy naax ma jégalu kon nag ma ma jégalu ma jégalu ma ma béy ma koy taaw rek mu xaw ma koy bala ma soog góor maa ngi lay wax. ma soog a doon góor ma ko def de ma koy jégalu ma ma jégalu ko toog kon man maa ko def loo xam ne ah yooyu yëpp ñu ngi wax bu sant yàlla sant bu démb bu baax na yëpp démb la doon am ci ñu koy naxee ci ma gisul bi bii am ñaata garab daal ñaata ñu dellu bind ak waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan c'est-à-dire ndeysaan lu baax la moo tax sant sant yooyu day neexal mbaa dana wax ne aar bi daal du leen fàttaliwul dëgg bu njëkk la ah, waaw yaa ngi dinañu tuddee la foofu waaye mooy déedéet. yaa nekk gën fuuf kon waaye du dana bëgg sa ngaa ngay dama ñu dagg soxal ba neex am tamit la jàng may nañ jàng asal bu mag kon ngeen déggee ca kenn ku ne ku xam ku ne bul topp ko xam yi ñaar gis nga yaa waaye bu ngeen bokkee rek tax muy sàcc ngay sàcc wala muy def daan ngay def faf yéen bokk néeg su boobu fu ngeen liggéeyukaay yaa ngi seen fu ngeen liggéey soo ci bokk kenn bokk kenn ngeen bokk néeg ngeen si nekk kenn fa nga am dina mu néeg ngeen dem nekk si ba ñëwaat parce que ay xarit ngeen xam nga fu ngeen ute yi ñaar yow homme de loi nga moom civil yow mi am homme de loi nga loo xamul yow day la rend fees na ngay dund yow da koy rend loolu la ko xam comme parce que xam dum nga dum nga dum dum nga bu loo xam ne soo soo loo xam dama war foog soo mën dañ ma tax ko comme loolu la xam mooy am du loi am du loi am na ko suñu ko def am du loi ñi mu lekk di lekk am du loi bu fekkee dafa respecté loi bi aw mu doon jël mango di maa fa ci lu bëri am daal ñu mu war a jëlee ñaan nga fës sañ ñu ko def am lu ñaan nga fës sañ ñu ko def boo sëñ gis nga même bu ñu defee oto bi ñu fësal affaire bi nga def taw yow rek ngay liggéey bu kenn jege-jege même bu jàppee ñetti permis ñoom ñoom ñett du am na kuy bokk nag kenn après kenn mooy ñëw moo tax c'est bu ko doon mille fois doon mille fois boo la waaye ku baax ñun yéen ñëpp ñoo ngi war a mel léegi ñu waa ngeen baax rek dégg rek yow ma naaw yomb na soo génnee benn gàll bu am takk ko rek pour mu wax nangu d'accord. même ko gis dugg naa ko lool billaay boo jëlee ma yoon cinquante mille la tax moo gaaw ci yéen lépp c'est daal nangar bi tey tey nangar bi ñu ko bëgg rek daa ma ko tere kaay ma loo ko tere kon jërë ngeen def Ah, ah, ah waaw rek waaw waaye xam nga dafa am ci loo xam ne duñ ko loo xam ne man si lay waxee xam nga lu toll lu toll can man fàtte naa can bi ngay ñëw ba toog ko xam nga ne la nga yore ëllëg xam nga misaal aaya bi njàng dem ki nga xam ne dafa waaw ku ko ne at nut can waaw taw la xanaa ko sax koo xam ne waaw taw la waaw koo xam at mu can min kum ci yéen can can waaw kooku même su ko may jabar lan la ko yore yàlla def wala ay jabar muy kooku can na takk jaam même boo takkee jaam loxo yi dundali ah yàlla léegi da nga jël ay waxaan nag doo xam nga waaye nag kon. waaye nag kon loolu ko tontu waaye mooy ba ma leen sàtte képp kon amuloon mbir ku ci yéen taw la ca. ah waaw lan la lay dégg maanaam nga jaar ci jiwu ba pare dégg yow xam naa la yow xam naa yow yow yow maa xamante ne yow yow yow gaynde nga yow yàpp a dundee waaw loolu moom benn affaire la waaw ko amul can mooy ma mooy Maodo kooku ànd ak amul can loolu moom moom foofu la mu yàlla ma bëgg na lu eh, nekk lu yàlla dafa diis réer haɓe sareye haɓe traɓe haɓe pelel yo yuɓe fo ɗis mokal alquran daga grammaire man pep ñowol ausul bayan neex ban moxal kurof yoyde fo ɗis yàlla mën na ko yombal yàlla ñu yëndi la yëndi ñu ñëw yàlla ko yombal dafa ñëw rek xamal ko lépp te jagul dara mu oyof bay ci kaw moo tax xam yàlla mooy oyof oyof day xam yàlla ko di di kontumu néew too fi da oyof bay waaye boo sarse ay bàkkaar kii rek da ngay gën gën kon nañ fexe oyof wata yàlla nag bokk ci yooyu mu gën laaw yàlla ëllëg mu ay fa am comme ci yéen day fekk seen bëgg parce que daa ko bokkal nga bindal ci sa doomu aadama day xam nga day mooy la bu dee saa nit day xiif bu xiifee rek dot nit nit da ngay sonn ngay merok su boo mënul lekk nag yow problème dama dox dama wax bu baax dama dara lekk ñëw lu kontaan wax suuf nëf nëf nëf nëf nëf nëf nëf mais lu suur ñëw rek nga day fa lu suur ñëwaatee xam nga xiif loolu day suur nga day fa pour que doo mën a doo mën a kii quoi mais lekk ay naan ay boisson ko désert ko lekk parce que dafa dafa bëri dafa bëri daa ëpp mais da nga toog yàgg rek nga soog tàggat rek nga xaaral ma tëdd daa ëpp bu doon yàgg rek nga naan xaaral ma nelaw ba dem yàgg ba doyal jot pour ñaar ñetti yoon ngay xeewaat day indi lépp xool li nga tudd ci day partout la loolu mooy bind day ñëw ñu borom ci day soo ngi fi ne maanaam nag boo ko defee bin insaan day yëf sax na ba rek mooy nii nii dañu doon parfait comme ni ñàkk yaa ngi am yëpp pare yaa ngi ñàkk day yëf waaw moom nii la bëgg yàpp rek am naa amoo dara loo am yaa ngi nii toog peso day càtte ba tax bàyyi na su ma mën a wax ma ne nii kooku ak peso day càtte mu nekk un mètre cinquante dara yóbbu dara yóbbu dama jax tàkk ci am dara si moom waaye ba dara mu mën a gis nii waaw ba gàllankoor rek mu mën a gis ndeysaan Cheikh Tidiane ndeysaan dimbali taalibe mi Cheikh Tidiane man toujours mu lay doyal foofu rek xam na seetaan man damaa jege man moom ngay nga dama sooy yaram damaa jege yaram damaa jege mbokk naa seet yaa rek moom xam naa dana xa dana xalaat adduna bi ndeysaan parce que ngeen ñàkk xam li baax boo mu ne sama taalibe kawaram bi kawaram yow nag tam dana peese juróom benn junni ñu nekkul tijaan loo loo boo ko déggee dafa gëm yow même kii doo gëm sax daanaka ko def dama gëm la waaye loolu li gi gi moom lu am la te seetaan moo am kawar gi moom lu am la mu ngi nii te rek moo am taaw li te daa mooy ku jag seetaan ba di seet seet lam seetaan rek mooy kawar gi kon kon nag ko tegee teg biir code bi calcul parce que lu am na lu am ak lu amul soo koy pesee luy daane. cëpp mu ngi nii parce que lii am na ba pare sax moom te yow leneen code bi ngay indi yëpp di ngañ ngañ dara am kenn amu ci. coraay bi sos naa ne ah sos naa ne waaye nag góor kon loolu mooy kooku la ko insaanu day fan day bind doon wax da lay ngi nag góorgóorlu nag bi di ërëfte fekk yaa ngi day yaa ngi yaa ngi ñàkk day yëf day yëf dafa wax fii ne yàlla nam wax na fii ci aaya bi ne yàlla namm na si ñun ñeenti mbir si ngëneelam benn bi namm na pour leeral ñu sariyan bi namm na yoon bu jub bi beneen bi na mooy pour nangul ñu suñ tuub beneen bi na pour woyefal ñu àtte benn bi pour sariyan la benn bi pour nangu suñ tuub benn pour la aaya bi jàngale aaya bi yëpp ñeenti yurid benn bi dafa wax ne yurid laa luy bayn lakkum waxaat ci wa yahdikum sunu lazina min qablikum feneen mu waxaat ne wa an yatuba aleykum waxaat ne wa yurid laa an yuqasfa benn bi dafa namm pour leeral ñu suñ sariya benn bi dafa namm pour gindi benn bi dafa namm pour nangul ñu suñ tuub benn bi dafa nangu pour woyofal ñu suñu àttee ah xam nga li ko jàngee da ko seetlu lii foog nekk nit ñëw gën na ñor ci nit ñi mais plan ñeenti yu bëri mu ko jëkkëral. kon yu dul naa lii béy na lakkum ku yàlla ma ñoo leeral si sariya loolu si fa ci bàyyi moo ko moom ku yàlla bàyyi leeral ñu moom yoon bi nekk ci biiram day xamal beneen bi mu xamal ni suna gaay pasul démb tere kay pasul démb yëpp traite boobu mooy traite bi ne ci biir baat nay max bi benn bi yàlla na nangu ni suñu tuub mooy tamaa bàyyi yës mooy tuub mooy nangu tuub yi parce que tuub ci moom diini ji mooy xaru baqaay mooy ñett ma diini danga lekk danga fa lekk ba ñëpp ñett ñett yaa ngi nii ma xamal ni bii ma xamal ni bii ma xamal ni bii ma xamal ni suñu goxu ma ne suñu yàqoon sa comme suñu suñu yàq waaw wax ko gudd bu amee bu amee leeral bu amee leeral ci bàyyi xam ne tey yëpp duñ di leer bàyyi ci leeral yi muy def war na leeral beneen bi wax daal bëri na leeral si sariya bi wax na si ñeent yooyu ba pare wax ne hmm? ah donc dugal mel ni soo gisee bu ñuy firi ba avant ñuy firi wala bu ñu firi pare ñu laaj ñu ci wax. la tax mooy comme ñun liiwuñu mbind mi dañuy ñëw toog nii rek ñu wax ñuy ñuy tafsir ndax wax dëgg yàlla parce que yàlla ndimbal bi. yombul kay loolu kay moom ñu ñu xool mbind mi xamuñ ko moo tax jànguñu du ñu liir du ñu xolli bàyyi wax fële waaye bu ñëwee toog rek moo gën dana wàcc waaw te it mun ma ko nafar parce que ku xam ku ku jàng arab bu baax mooy nafar mun ma ko nafar ci dugub parce que jamono sax daa moo nafar ba mu xalaat bi waaye moo mun nafar ñu jàng waaye su ma xasee toog nag damay damay damay toogee Cheikh Tidiane di yàlla di ñaan dimbal li ma gaay bu la laaj nii ku muy war a jàkkaarloo yaa ma war a faj yaa ma war a leer lu mu wax yaa war a yàgg ne parce may def ci moom donc nag ndeysaan kon damaa ci kër Tuubaa yi di yàlla def ko li ñu daan fay sant yi su ñaanee yàlla sama boo période boo xam ne mën naa ci dégg la loolu moo tax doo mën a jàng affaire yi waaye boo waxee nag daal di mën a xam dara donc boo xasee wax it dama cee xam du ma ko xalaat da ngay wax rek automatique lay nekk dama toll ci loolu moo koy sant yàlla baal di ko te ñu nekk lu baax. xam naa ne ku mën a seetlu laa tey nag ay bi dama yëg a seetlu moom wala wala wala jërëjëf ñu tàggoon moom sa wàll wala sa moo tax waaye nag ni kon wax tey. kon nag kon mooy xéwal yàlla ko pour xeetu yonent yàlla nag. waaw. comme ni ko sang bi firee. Euh, bàyyi dafa am ñeenti yurid yi benn bi sariya la benn bi siraatul mustaqim benn bi pour nangu suñ tuub benn bi pour yàlla waaye fam suñ sariya te bu mujj bi moo ngi firee ci maarifa te moom la bàyyi wax ne mooy xéewal gi gën a màgg yàlla def na ko woyofal ko pour yonentu ak xeetam nee na loolu nag euh, day mujj di euh, xéewal boo xam ne yàlla moo ko xéewal yonentu yàlla Muhammad mu ngi mel ni comme yonentu yàlla Ibrahima dafa waxoon ne man maay dem ci yàlla ne loolu dem gi ci Ibrahima la jógee ko Moussa tamit wala maa jaa Moussa li miiqaatina kon dikk gi tamit ci Moussa la jógee kon Ibrahima dem gi ci moom la jógee dikk gi tamit ci miiqa ci yonte yàlla Moussa la jógee waaye yonte yàlla Muhammad moom yàlla ko bi abdihi ci yàlla la jógee ci yonent bi ah, kon ci Ibrahima dem gi ci moom la jógee ci Moussa dëkk gi ci meex gi ci moom la jógee waaye yonent yàlla mel moom yàlla dafa na subhaana la ci asra bi abdi layan comme comme ni nga daan koy firee si lay ñëwaat mu ne rañaan gi moom ci yàlla jógee ko wàcc ci yonent bi beneen bi tamit ci xeetu yonent bi xéwal ko ci am yàlla dafa ne dinaa leen wani dinaa leen wani sa nërimu ayat naa seen affaire ko fi anfusi loolu xéwal la boo xam ne yàlla moom xéwal la yonent yàlla Muhammad xeetam subhaana la si asra bi abdi layan xéwal la pour yonent bi sa nërimu ayat naa seen affaire ko fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu xaq loolu xéwal la pour xeetu yonent yàlla Muhammad salaatu loolu sonal kon bii jur du leeral je crois kon leer na effectivement loolu la subhaana li si asra bi xaddi laylan yàlla yow it la ñeel kay yàlla jóge gi mu jógee fi mu jaar jaar yu ba yan bu nekk yu nekk yàlla na jawataan loolu it la ñeel xëy na ñoo ñu xam ñu jaar waay yooyu wàcc ci ñoom ñoom ñëpp mën hmm. ah, ah, nga ah, lu gars yi ñemee wax hmm. li nekk nit moo tax su ko waxee dañ koy ko waxee xaw ma teg na ko. soo jegeel nekk yëgal sa tànk bi. mu yëkkati benn mu ngi yëkkati benn ci mbooloo mi mu ko nawet daal mu ne waaw ku ma dañuy ñëw sa ñaata mu wax ne laa doon def la te man yàlla laa moom yàlla moom yóbbu laa ko yàlla yéen laa ko yàlla moom te yéen it yëkkati nga yëkkati tànk bi encore bàyyi beneen bi te yëkkati beneen daanu loolu ma xamal ci moom tànk bu ruur la yëkkati moom asamaan la yëkkati moom moom moom loolu beneen seetaan moom mu yëkkati mu daal. kon gars yi jërëjëf ku nekkal insaan daif loolu yëpp jur laa rek an yuxafifa ankum wa xuliqa al-insaan da'iifan yàlla ma bind waar ma ci vraiment ci lot lot gi nag du tere dara bon lot yi daw yi ma naa ko léegi waaye lot luy firi rek loolu bi ne pare am nga glace day dugg lot ndox doo ci lot. classe wax leen ko dañ bind ci lot parce que moom bi mu ñu ko bindee pare boo bàyyee rek da nga muy sëy muy sëy ba mu dëgër ci biir encore dafa nga ci lot nii fekk max rek la bu wax di sant yàlla baax di nuyu ñëpp di leen ndokkeelati di leen ziara di amati mbégte bu wér ak kontaan tey ci xadra bi di kontaan trop ci suñu changement pasteur mu mel ni benn la ñu war a ñëwoon tey ci am dafay mel ni lu ñu war a gën a leer gën a loolu lay niru. loolu nag dañuy sëriñ mooy xadal mooy jërmalut buñ toogal xëcc kenn te mu ñëw toogal waxaat ndax avant ñuy commencé dama ne ana sow sow sow ñu seet sow gisuñ ko am ko woon woo naa ko waaye dafa génn am ko waxul ma ñu seet ma xool ne ko ma waaw tubaay bismillah kon ne ko tubaay ma ne wala tubaay ne joxal ma soppe bu baax bi yooyu ñu ngi xëccante ku nekk mën na ko ay ku nekk xëcc sa morom loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy bëggante man lii laa gis ne dëgg-dëgg karaama mooy lii mujj sa mooy lii ki mën na ki mën na ko ki ne ko waxal ki ne ko waxal ki ne ko waxal ki ne ko waxal ay ay dix fois wax bu ko nee boo toog wax ko ñun seen tatara ñëw léegi mu ngi mooy gën booy wax sax moom mu ngi wax baal yi moom far mokkal ba mokkal baal yi moom far tawa bokk moom it ma waxoon kon ma wax lu noonu loolu yëpp bi fii ñu ngi sant yàlla ci xadar bi kenn war naa dal xam naa ay borom xam ñoo fi nekk li wér te wóor mooy sanga jaay moom jàng na arab ak jàngu arab yow li li suñu li soo mooy client lay doon bu jàngul arab dem ci arab di wax ci arab la xam xamoo ko wala boobu ñi mu yar jàngu arab di ko wax nga koy dégg lan ci mujjee tey mooy dafay nax waaw loolu ko waxaat xam naa nax ñëpp moom yombul ndax kenn moom xëy na ma nax waaye nax fukki mu xel lañ te ku saaga xam ku ko saaga saaga Tidiane yi ku ko ku ne xamul dara mooy Tidiane xamul dara ku ne bidaa la indi kon Tidiane yëpp ci bidaa la nekk am ñaaw te nit da war dafa war sëli wax ndax borom xam-xam bu njiit saa yoo ko seetee ñu ko ay ñu gars la moom te àddina bii ñu nekk gis daal Mouhamad tey ku ko saag saag a dund yëpp noonu la mbir yàlla mel li may aar yàlla lii mooy aar yàlla yàlla fan mucc ñu koy sàkk wala mucc ñu koy xas mu tudd ñu wax ci lu ñaaw mu yàlla di bi affaire ah. am na ñu dem ban yàlla amul te gëm nañ ko pourtant yàlla amul am nañu dem ba yàlla amul. am nañu sant ak créé ñu ne xaddim ñii la meloon ñii la meloon balaa dara ni am yàlla nga nekkoon scientifique dañuy gis ñu def seen kii yooyu seen machine yooyu. na dina àddina di màgg di def def ay ñii di tàkk nii te da koy sa ñu ne àddina ñu ne nii lay màggee te yaakaar naa ko àddina dina te bu ko àddina ñu ne la dafa dafa dafa dafa ballon explosive big bang ñu big bang asamaan yëg su wàcc ñu la moo ko big bang daa ko tëj big bang man li may laaj big bang lu fi nekkoon aw lu ko tax ne big bang lu ko laal ba xanaa dana am la tëf gi fi nekk ko tëf waaw. julli dox nañ waaw julli ñu ko ci lenn te lenn li tib dafa xas dafa la aw la yor sa këfoo këfoo leen tudde moo kaafir leen tudde kaafir. am na war na kaa taal rek xam ko weddi kaafir. yent bi satal naa xumaa yàlla taqale asamaan su kon yàlla moom moo ko delloo ñu ko witti mooy ñu def waaw yàlla moo sànni asamaan sànni su dee jaww taw te lii li ñu dem ci diimu yàlla pour que du mucc rek mu daal sariya daal tariqa daal xaqi parce que sariya ci kaw li jëlee tariqa ci suuf lañ ko daal xaq ci ko jaww ngi ni appel li may am ak sama yi mooy jaww sariya may asamaan ma ma leen jël ci ko suuf muy traité moo tax bàyyi ni jaww xam nga baatu arab suy wax jaww utut lu ci lu utut avion suñuy naaw utut lu mu tudd yoonu avion utut lu mu tudd utut moo tax bàyyi ne wëy na utut yaakaar bàyyi moom jaww ji ma traité dina utut dina saxatu. kon suñu gars yi daal dëgg-dëgg séddale àdduna bi ñëw moo tax asamaan mu ngi fu ne suuf mu ngi fu ne jaww mu ngi fu ne asamaan fépp suuf fépp jaww fépp pour asamaan nag doo fenn te doo fenn naa sa dellu baax di leen nuyu di leen dëkkeel barhamu baun waraun alifun thumma